senin var yerden. Ini kena. Ya ini banyak nak bergerak. abonné wu youtube tv na la fofu nga abonné wu ndax ngay am vidéo yi ñu duggal chaque jour am dara jaay jubbanti pas nit yi ak xalaat mu jublu ci yalla gi nga ne ndax pamparu papiro ilallaahi dañu daw jëm ci yàlla làqatukaay bi nga xam ne nii mooy sangeti te ku làqatu ci moom raw mooy suñu borom subhaanahu wa taala kon ku woote pour delloo xeli jaam yi ak seeni xol ak seen yitte yépp ci yàlla yaa ngi jihaat kon lii jihaat la jihaat du xuloo du xeex du reyante du boddente du parparloo waaye jàpp jaam ñi fexe ba ñu dellu fi ñu jóge woon te moom rek moo leen ci boppam loolu moom jihaat bu mag la ci jamono bi ñu toll kon ñoo ngi gàccee ngaal su gàccee ngaal amal ki nga xam ne moo woote bis bi di yàgg koo woote muy Pape Ndiaye amaana dañuy tënk rek ay kàddu yu gàtt ci li nga xam ne moom lañ fi dégg muy xam-xam boo xam ne bu set la ginnaaw bi ko bëggee dara fetlu ko mu dal xel te set bi itam xol lool ndax képp koo xam ne nii teewlu nga fi déglu nga fi loo xam ne jaral la la nga paas ba des sa sëriñ te amaana sax doo ko fa déggee ndax yow bul ci nekkoon di waxtaan wax dëgg yàlla bay am na solo doon yi itam ci jox rek minute yi la jox sax doyul parce li nga xam xarit li nga xam ne nii moom mooy li la jox. kadi leer na lol ci li nga xamne ne daanaka ñëpp ci wara wax muy waye jamono ci lende mom ci yaako dem ba ñepp di ko jamono fekk aduna la ndax aduna ak jamono du ben suñu borom mo ne laata tur bu dëxëri inda dëxëra huwa laa bu len si jamono ndox tax jamono man la ki nga xam ne mooy soppi di doxal ci lu mu ko neexee ci kattanam googu li muy soppi di doxal loolu mooy àdduna moo tax melul benn melokaan te couleur bi muy am ko fiy indi mooy doomu aadama couleur doomu àdduna am rek nañ wax ne doomu aadama bi la kon boo bëggee defar àdduna ba mu jag parce que lëndmaay àdduna lañ wax ak yàq-yàqoo kon boo bëggee defar àdduna koy defar doomu aadama kon nit ki moo war a xam ci boppam sax lan mooy jamono ci moom ak lan mooy àdduna ci moom bu ko defee dafay topp jamono waaye du topp àdduna ak kii ki bëgg àdduna lan lañ koy wax mooy dafa fàtte biiram di defar bitéew te bitéew saa yu ko toppee di defar rek dugg na ci vitesse woo xam ne benn mbir nag mënu koo freiné mënoo koo laaj ba mu taxaw xoola jëmbi doomu aadama yi ni ñu sonnalee motax ñuy ëppalante ngir daraja ngir sangu ngir wut kër ngir wut alal ba lool moo ñu poussé ci xoolatuñu lu arab wala lu dagal xaw ma nu ko nasaraan bi waxee woon waxee sax tout la mooy xaw ma sama xaw ma lañ toll yéen ya, ñi jang xam ngeen limay wax parce que yaq yaq jamono yi mo dem sax ba ci biir famille ba ba yow bo amul dootoo tekki dara kii sa nawle nga bokk ci moom sax boo yorul la nga war a boo ko ñaanee soxla dañ lay dàq benn dàq boo xam ne bu teer a teer la nga xam ne dañ laa dàq mais ki kiñ koy may gënu la kon loolu moo yàq jamono ji te léegi nag boo demee fa mu war a fajoo foofu la feebar bi ëppee parce que nit dafa defatul moromam nawle yëg ni nit la day defe ne kii ak moom moom moom mooy nit wala moom mooy yàlla sax léegi kon jamono ji fan lañ jëm sëñ bàyyi sa lii wax na lu am solo gis nga jikko yi bala ñu koo sàmm dañ koo defar ba pare gis nga loolu kàddu bu wër a siiw la ak a am solo gis nga ñii ñuy jéebaane di leen di leen jéem a gàllankoor ñun sax ñoo leen di publicité bu ñu pare woon ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee kër lislaam yi ñu pare ba li ñu war a def ci seen taal bi ñu def ko ci ñoom bu leen neexee ñun ñuy fanaan ak ñoom di yendoo ñoom parce que dañoo am lu gën liñ ñuy joxe. gis nga nit lu mu bi bañ nee dafa ñàkk ko dañ laa fekkal ngay ko moo ñu oomal la de kon lan lañ ko joxal ba muy nekk ku woomal te dencul dërëm koom dëgg mooy yàlla pas-pasu jaam bu yàlla nekk loolu mooy alal mooy koom bu dul jeex te loolu ci nit la nekk li anna kulla nafasin min rajulin jawhaaratun nafiisatun lam tanjali sëñ Tuubaa nee na bépp ndokki ci waaye wurus bu seer la woo xam ne feeñu ndàmm la yumkinu an yastariyal kalsa biha laa yatanaha xayru fantabiha dina jàpp dal na nga exploité ndàmm loolu comme mi na ci yow a piir wuru gën a piir dafa ne day nelaw ci yow amoo ku fa exploité moo tax ngay daw ci përëm waaye soo ko lijjanti woon ba toog ci përëm ak wurus ñooy daw wursi la wurus buñ ko tëjee ba mu jekk te solalul ko nit ku rafet ah ñun li ñuy daw di wuti ba fekk loolu suñu ngor fekk loolu suñu diina loolu ñun ñoo ko defar ci suñuy loxo valeur bi mu am it ñoo ko jox mais kayitu 10 000 boobu am na koo xam ne nii ginnaaw moo kii xaalisam bu rey ginnaaw tàngal ko xamul valeur am valeuru xaalis foofu xam ku dul nit ah kon nit ñi ñoo yàqu jamono ji yàqu ji yëpp nit ñi la te yàqu taalibe yi mooy ñàkk a defaroo sëriñ si nañ ko wax. nit ki dañ koo war a yee ba mu xam ne moom addunaam bii muy topp muy jëmmam dafa am jamono ju yilif adduna tëbb ko te adduna boobu am ay organes yoo xam ne nii man day dund ci biir ci biir jëmmam ji li koy tëbb nag mooy ruu gi te ruu gi nag am na loo xam ne nii mooy mooy rayon yi bàyyi sëriñ doon wax ruu doomu aadama bu tilimee mbooleem cër bu nekk ci moom fonctionnement bi muy fonctionner du li yàlla gërëm am déet mais su fekkee defar nañ ruu gi bu tëbbee xel xel tëbb xol xol mooy tëbb cër yi ndax alxalbu kal maaliku fil ahdaa ila sëñ Tuubaa wax xol mu ngi mel ni bóoru cër yi mahma yamilu tamilu ma ak si daay fu mu jeng aw day ànd ak cër yëpp buur ak i dagam kay fu buur bi aw te fi mu nekk nii ci buur googu lañ nit ñi ñoo jàppe seen bopp ay buur muy ñi nekk ci nguur gi ak sëriñ yi jàppe nit ñi ay jaam dañ lay gëmuloo pour ñoom buñ aw rek nga aw fa sa xel bi la yàlla jox nga war cee liggéey dañ koy lem ba mu ron ñu tencal mais loolu moo tax jamono ji yàqu te yaa sax Moussa da ne kenn ku nekk yàlla jox na la jëfandukaay loo xam ne mën nga koo liggéey sa àdduna yooyu sa àllaaxira yooyu te loolu mooy xel moo tax yeneen bi lu yàqam xel daf ko tere moo gën a riis ci doomu aadama mooy antenne bi nga xam ne soo taalee télé bi te amu ci du leer du la jox image saa yu xel yàqoo rek ngay jëndee la leen ngay gis li nga doon gis nii mu xonk day mel ni lu ñu ci yow te mën nga cee waat yow ba xeex La ilaha ak moom buur boobu ni mu nekkee ci suñu jëmm ji noonu la nekkee ci suñu yaakaar tey parce que yàlla feebar bi mu wàccee bala koo wàccee andi na saafara am dégg jàngoro lu mu rëy rëy rëy boo demee hôpital am na ci organe bu nekk am na ku ko yore te mu ngi koy doxal am dégg waa lan moo tax nag hôpital baatin yi nga xam ne ñooy médecin baatin yi muy sëriñ ñoom nekkul ay spécialiste la xaw nañ lañ koy waxee ba pare ñu jox leen suñ bopp ku xamul ruugu feebar xamul xel moo xam ne dafa dëgg xamul xol bu bu yàqu nga def jox ko sa bopp ngir nangam la sax mais problème am na mais jikko yu ñaaw yiñ fii wax yëpp ak tekk yi bi feeñ nañ ñëw ci waa kër Cheikh Moussa ñu defar ba pare ñoom kon am nañ anti am nañ beleen ne parce que lañ leen di joxoñ ñoom dañ koo am muy koom bu dul jeex muy yàlla nit lu mu fi am dul yàlla bu nelawee fàtte ko bu dee ñàkk nit lenn rek am ci àdduna borom ndax leneen lu mënti doon moo ko moom doone gi moo ko mooma na ciy toog moo ko moom doo dégg moo ko mooman moo ciy toog sëf yàlla nit borom rek la fi nag yeeku ci xolub jaam ba moo gën ngay mu ñëw di gis ñooy dajale ay moyens ba mu nekk ci xolam am na ñoo xam ne seen kër sëriñ la seen xel nekk ci àdduna boo duggee ci kër sëriñ bi doo doo xool sëriñ bi da seetaan li fa nekk nan laay def ba mu am sama kër mais doo fa jëlee dara yàlla walaysa maatara mu tawaraa kër kër walaysa kulla dawhin xamaraa loolu sëñ Tuubaa wax da dañ dégg lim la du lépp luy kurmbalu rek mystique la waaye du bopp yi ñuy kaal yëpp am na leer فليس كل ماء سلسبيل وليس كل سهب سهد مثل سابل يا يا يا دبيل نيكون دوخ ييب اكسا سلسبيل لا ñolu la ndox yi daa bari façon de waaye nekkul xëbb yëpp it lem la walaysa kullu ma fi naaru naaru naaru istilaa man yusaafir nekkul lépp luy leer ci guddi rek woo xam ne kiy tukki ba sedd mën na cee jaar wa ahtabir rijaala moo ci topp xam na suba wala tusaaya xuuran aw saarax ba na nga ki nga àndal ci yàlla te nga feebar yëpp te da ngaa feebar nga dem ci moom na nga ko nattu ba xam mën na laa pajal déet bul ànd ak dox bul ànd ak koo xam ne xoolul sa wér yaram li muy lekk la la la xool gis nga lan ca teg daanaka moom la góor yàlla yi doon waxee la tashtari hamba bi khul malbat ma taxaadudi wa kusri dannas buñ jàppee waji ji ci kusri dannas yaramam wu tilim wala colom bu ayo isrit basi si taxaddudin xadim sala min an nur wa sirri min ilahi xatala bari nak ko xamne yaram waw tilim na am ay gëgëstën ndax ak dundam moo wu jekul aduna te teewu ko ñak mu ñak benn cër ci yàlla waaye fees na ci leer yalla ak ay sirop kon ñun suñu problème suñu feebar suñu lépp ñi ñu war a faj ñoo feebar sëriñ si ñoo xamatut yàlla àggatul ci yàlla xoolatul suñu xol waaye lan lañu xool suñu koom loolee nag moo ñuy sonal ba lépp lu tëgg te am koom bi te génne rek ñu jublu jëm kenn mënuñoo téye nag li ñuy wax nii saafarwul jàngoro yi de nit ñi lañ war a defar ba ñu seexlu yenn yi waaye li ñuy def yëpp dañuy publicité gaa yi am na man xamuma ci dara mais fan yii maa ngi commencé di xool di xool di xool ba am naa ci xam-xam boo xam ne su dara nekkutan ci man loo xam ne nii man na maa sàmmaloo sama pas-pas te li ñuy joxe ñoom duñ la ko dig dañ la koy jox léegi nga moo tax nga xam ne ñi ñuy woy ay kilifa diine wax dëgg yàlla ñii daxwa ak a def ay nu mu ko tudde xutba ci jàkk yi war nañoo wax ak ñoom ñu génn wax ak jaar ñi am nañ ay responsabilité yu mag a mag mag ndax point yi ngay wax yëpp boo ci dem bu la tuddalee sëriñam nga ne déedéet te secte boo ci laal ñoom ñooy taxaw génn na bu ñu bàyyiwul dinañ wax parce que am na ay kilifa yu bokk ci ñoom ci aada ji wala ci diine mais ñun fan lañ jëm fan la làq du kayaane kon ku lijjantiwul sa bopp da ngay perte jamono jii day gën a lëndëm parce que jamono ji booy nit ñi te nit ñee yàqu lu bon boo fi dégg nit a koy def parce que nit nekkatul ci moom gis nga nit waxuma la sax l'islam mais nit su àndee conscience tranquille am na yoo xam ne sax du ko def mais nit ñi am mala sax leen dale am na loo xam ne ñu ngi koy def mala du ko def kon est-ce que nit da nga fa jëmm bokkut ak nit jëmm tàgg la rek ak saay-saay sax da ciy def am na xam na jëf yoo xam ne jëfi xaj la pourtant xaj ba du waaye jëf ko ba ko yóbbu foofu la ñuy bañ loolu nag ko war a dàq ci yet biy dàq yooyu yëpp lañ wan ginnaaw laa ilaha illallah bu ànd ak kilifa bu xam secret ba ñëpp a ngi wax laa ilaha illallah mais a jubali nit kon nag temps bi xat nañu a lii fi góor yàlla yi wàcc nii a jar a bàyyi xel nit kër sëriñam du ko fa dégg dem na ba màkk tabaxee du wax mag du wax moom te da ñëw fii ci jotaay bi amul dagg bi bu waay jaar jàll nit ñi intéressé wu leen ba moo dem dañ koy rang di dagg billet bi yu seer te jullit yi ak murit yi ak tijaan yi ñoo koy kon fan lañ jëm kon góor yàlla yi da ngeen war a wax de te Moussa li mu waxal dafa leer waaraate jeex na yeete moo des sëriñ sii topp nit ñi di leen jaamloo xiiruñu leen ci jaamu yàlla xiiruñu leen ci ay waajur xiiruñu leen ci ëllëg di leen xiir ci àddunaay kese te buñ amee àdduna biñ leen di ñaanal ñoom lañ koy ñoo yàq jamono ji de bari nañu bëri na fi mu ne nekk nii gëmatuñu sëriñ gis nga Ibadu Rahman gii ñuy wax nii am na ci kër tarixa yi am na ñoo xam ne ak xasidaay seen sëriñ wala sëñ bu mag bi te fekkuñu ko fi dañuy daanu ñun ñi gëm yonent bi yëpp dañoo am wasila kerkeraat kon ñoo ngi déglu parce que day gën a yaatu ñoo ngi jégalu bu baax ci tuddeel bi waaw day xam ne ay kàddu la woon yoo xam ne mbégte la yoo xam ne dafa feeñoon ci ñun ndax ci seen xam-xam bii lañ ko lañ ko boree